waaye Faranse man na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñii génn gàddaay far dem faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri cere soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu Buukar mbokk safoo seen chaîne di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu ak ziyaara mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak eh, bitim réew mbokk yi nekk ci kippaangoy mboor yi ak kippaango yi nga xamante ni bii mooy ñii safoo Xam Sam Réew TV ak it support xam sam réew nekk ci Amérique ak ki pangok cosaanu Sénégal ñu jébbal nuyoo bi bay Cheikh gay ki pangok sàmm sunu mbatit ñuy jébbal nuyoo bi Saa Wolof Abdoulaye Cissé di yu bokk yi nga xamante ni ñooy safoo chaîne bi di woy njañ sa yi commentaire vidéo yi ak fu ñu mën di nekk ñi leen di nuyu di leen ziyaara bokk yi seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV dafa fas yéene ñëw ak yéen ci ay pàcc yu fasanti ko maanaam ay épisode ci xew-xew boo xamante ni xewoon na Kajoor ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk di 1860 xam ngeen ni damel bii ñu doon wax Birima Ngone Latiir ci at moomu ci la saay maanaam ci la faatu xam ngeen ni moom moo wuutu woon maamam ki jur yaayam di dameel may sa tend jor faal ñi nga xamante ni toog na ci ndameel gi ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ba ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent kon ci atum junni ak juróom ñett fukk safarla junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent 1854 ci la damel may sa tend joor saay sëtam bii nga xamante ni mooy Birima Ngone Latir nga xam ni may sa tend joor moo jur yaayam Ngone Latir kon moo wutoon maamam Damel Maysa Tend ci atum ci ndameel gi ci atum 1854 atum junne juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak ñeent def na ci ndameel gi juróom benni at ndax ci atum junne juróom-ñett téeméer ak juróom fukk la say manam ci la faatoo faatoom googu nga xamante ni ñaari wax am ci dafa am ñu wax ni fader bu moo ko poson moo ko jox tooke am ñu wax ni dafa tawatoon tawat ju metti ba ci weeru décembre atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent décembre mille huit cent cinquante neuf siiwaloon nañu ak faatoom waaye ca weer wa ca topp di janvier ci ndoortel mille huit cent ci la dammeel Birima Ngone Latyr faato moom waajuru mu jigéen di Linguère Ngoné Latyr naa leen may sa tend jor may sa tend mooy baayam waaye Linguère ab sa moonoon jaxate mooy waajuru Ngoné latir Linguère Ngoné Latyr ci meenum géej la bokk boo ko toppee moom ab sa munoon waajuram di Aïssata Diop di doomi saa xewar Fatma ak Issa Dieye moom Fatim Penda moom Damel Lar Sukaabe moom moomu nag di wajuru damel amri ngone damel brimo ngone latir ngone latir yaayam am rakku rakk ju jigen ju ñuy wax isa tend te mu siiw lool ci turu debbo sukka xew-xew yi xewoon Kajoor ci 1860 fis na ci lool Linguère Debbo Sukk Faal mën nañoo wax ni Linguère Debbo Sukk mi ngi woon ci xolub yëngu-yëngu yooyu ndax bi magam lingeer la tir faatoo moom isa tend fall dañu gën koo xam ci debbu sukka moo ko wutu ci lingeer gi ndax ku taqoo woon la ak magam jooju doon liggéeyal Ngoni Latir ba jànge ci moom lu bare bare bari li tubaab di wax expérience moom isa tenn wala debbu sukka jànge na ko ci magam jooju doon lingeer Ngóone Latiir magam jooju nga xamante ni mooy waajuru damel bi faatu di Birima la tiir bi mu toogee ci ndamel gi ci atum 1854 ñaari at rek la def ak mu jigen wowu don ngone la tir fal mi nga xamanteni moy damel Damel Lat ngone la tir itam kon Damel ngone la tir moy magi la Joor ndax ño bokku yenn ndey di ngone la tir fal mi nga xamante ni ci atum junne juróom ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom benn 1856 ci la faatu waajuru damel Birima Ngoni tir di Linguère Ngoni Latir fal waajuram wo nga xamanteni mok la jor ñoo ko bokk kon di nga xamante ni bii li Nguer Ngoné Latyr faatu na Debba Sukka moo ko wóotu nekk ci wetu doomam jooju nga xamante ni yaayam faatu muy dammel Birima Ngóone Latiir moom Debba Souka itam nag Linguère Debba Souka bi magam jooju di Linguère Ngóone Latiir faatoo ku jàppale doomam ji di Birima Ngóone Latiir ci ndàmmeel gi la woon ndax mën nañu wax ni Issa Tend di Debba Souka jigéen la woon ju góor te bu nu demee ci pàcc yi ci kanam loolu dina feeñ xam ngeen ni Damel Birima Ngone Latir bi mu wuutoo maamam Maysata Ndi Joor ci ndameel gi xeex na xeex yu metti ak waa Bawol di teeñ ca Yacine Ngoone Degen teñ ci Yacine Ngoone Degen moomu nga xamante ni yoroon na ci sa di debbo sukka kon Birima Ngoone Latiir bi mu faloo rek xeex yi mu doon xeex ak waa Bawol kan la doon xeexal ki nga xamanteni bi bii moo yoroon ndeyam ju ndaw ji di Linguère Debbo Sukka xeex bi nga xamanteni ni doxoon na diggante Damel ngone la Latyr nak ak Teeñ ci yasin ngone degen la ko waraloon mooy bàyyu Damel Birima Ngóone di ma koddu kumba doomam ji di Damel ci Kajoor dafa doon xeex ak waa Bawol ngir bëggoon bàyyam bii di ma koddu doon teeñ mu ca moom Birima Ngóone Latiir doon dammeel ci Kajoor xeex nañu xeex yu metti waaye xeex yooyu yëpp ndeyam ji ndaw ji di Linguère Demba Suko mi ngi woon ci wetam moom Damel Birima Ngone Latir nag ci fukki fan ak benn ci weeru janvier atum junne juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk le 11 janvier 1860 ci le Fato, Fato gu siiw Gogu n'a n'a ga ñu waxoon ci weer décembre Gagné ñu ni faatu na Bobo. Fato Gou, loolu nag bi mu amee gouverneur bi fi nekkoon di Faidherbe wut nañu ak kuréel goo xamante ni jàmburi kajoor yi ci la ñu tànn ak kuréel yi tubaab di wax délégation ñu dem Ndar ci gouverneur Faidherbe ngir yëgal ko xew-xew bi xamal ko ni ko dameen Birima Ngóone Latir Fall saay na jamono jooju fekk na Faidherbe moom mii doon xaar tawati dameel Birima Ngóone Latiir jooju wér ndax ay dëlante yu ñu defoon muy ay traité boo xamante ni tàmbali woon nañ ko ki diggante Faidherbe bu ak Damel Birima Ngone Latir ngir booba gouverneur Faidherbe bu bëggoon na Damel may France maanaam ñoom tubaab yi ñetti barab ay poste yoo xamante ni li ñuy wax liiñ télégraphique dana mën a jaar ci ñaay bi jaar ci réewum Kajoor ba lëkkale Ndakaaru ak Ndar moo tax nag ndagab bi ngi doon xaar moom Faidherbe Damel, brima ngori tane ci tawat gi bañu xati bante traiteur yoyu su fekkonte ni moko poson kon xamon na ni du jog waye ñom tuwa bi dañu wax ni tawat ji mu amon mo cancer pulmonaire di tawat joo xamante ni du wér foofu itam jaxasoo ndax su fekkente ni xamoon nañ ni tawat ju dul wér la yor nan la feder bu di mën a xaar mu wér ba ñu wéyal loolu ñu dooroon kon daal faatu damel Birima Ngóone Latiir taq na suuf ndax su fekkee fedeer bu moo ko poson xamoon na ni day faatu kon warul woon a nekk mu tane ba siñanteeg moom traité yi ñu dooroon ba ñu xamee ni dafa amee cancer itam ci xol bi xamoon nañ ni du jóg kon nan lay xaare mu jóg ba ñu eggalee lañu dooroon mbokk yi mu mel ni li ñu mayoon ci waxtu maintenant kon dañ leen di jox dox daje rek ci ñaareelu pàcc bi di deuxième épisode bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaax rek ngeen abonné ci seen chaîne bi di bëgg vidéo yi di ko aimé di ko tasaare muy di ko partagé maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci ñaareelu pàcc bi waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu yi ca réewi soose gabang boole koog baraama siise tala ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir laaw la ma faraañse ñoo génn lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu Bukar